Chérif mu doon yëglekaay li ñu xëyee tey pàcc bu njëkk bi euh, Abdoulaye Cissé ñu taxaw ci actualité bi euh, ñenn ci ñi ñu euh, woolu woon wala ñi ñu téewoon ndigam woon ku ci mel ni Cheikh Yérim Bougane Gueye Dany ñoom ñu bàyyi leen ñu ne déclaré dossier bi sans suite ñu classé dossier bi sans suite pardon loolu lan lay tekki Abdoulaye Cissé et puis au même moment gis nañ mouvement Y'en a marre di def conférence de presse ñu fàttali ni Aliou Sané quand bokk na ci ñi ñu mujjee woon a jàpp mujjee leen ci gouvernement bi régime bi ci yenn doxalin yi ñu jàpp ni waruta am ci mim réew. waaw xam nga bu dee dañoo ñaawlu woon procédure yooyu ñu ubbi contre nit ñooñu ñëpp bu ñu demee ba fa nga xam ne mooy cëppaandaw ga muy yoon ñu bàyyi leen classé sans suite parce que mënoon na doon sax bàyyi nañ leen waaye mais classé sans suite mooy lii suul nañu ko. mieux encore mooy xëy na jaru ko woon parce que nag au-delà de se réjouir du fait que ñu dellu seeni njaboot dal am mën nga ko déggee apaisement mën nga ci déggee lu ne mais le mal est fait parce que aussi ñu xam ni teg nit ay stress tere leen nekk au auprès de leur famille teg leen fitna xoqatal leen ci objectif boo xam ne finalement politique la parce que vraiment on est à l'aise pour le dire aujourd'hui parce que on l'a di et redit bien avant justice bu fekkee ni moom mi nga xam ne moo yor baat bu mujj bi wax na ni lii jarul ñu ciy topp kenn vraiment loolu lu ñuy rafetlu la mais xëy na la jiitu ba pendant deux jours xoolal fitna bi mu fi indi pendant deux jours ak ñoom ci seen bopp li mu leen teg yàqal na leen parce que évidemment peut-être amoon nañ seen yeneen programme amoon nañ seen doxalin ak leneen ak leneen lu ko fi jarul woon la. d'autant que d'ailleurs liñ leen di toppee <laughs> vraiment xam nga lan moo garaaw baaxul nit di teel dem ci escalade. Hmm. escalade bi par exemple boo ko jëlee fii mooy lan jàpp ni nit waruloon a contester chiffre premier ministre tegu ko fenn mais nit am na droit wax ni man gëw ma lii. wax leneen te jarul dóoraate mais escalade bi fi muy fi mu wonee ni baaxul xolal Bougane Gueye Dany bi mu génnee xam nga avant sax daan na wadd wax ji mais bi mu génnee démb ci digg bi la jaar hmm. te dara du ko ci fekk xam bu fekkee ni am na lu mu waxoon hmm. ñu toppee ko ci yoon bi mu génnee dafa delloo buum ca mbëgg ga en en des termes beaucoup plus crus parce que démb ci digg bi la jaar te dara du ko ci fekk donc ça veut dire que jaru ko woon hmm. escalade boo koy jëlaat parce que c'est bien ñuy delluwaat ci histoire parce qu'on l'avait dit et il y a beaucoup de choses quand même qui vont se répéter au Sénégal hmm. escalade mu nekkoon diggante 2021 2023 bi ñu fi defee loi boobu nga xam ne dañu doon criminaliser associé terroriste ku ñu téye ci manifestation bu ñu autorisé wul ñu mën laa yóbboo ci yoonu terrorisme lu ne woon fii terroriste saway du loolu parce que bis bu vrai terroriste yi fëlee noo koy tuddee loolu moo taxoon ñi nekkoon ci nguur gi seen indignation soofoon nit ñi ci bi nga xam ne attentat wu yaraax yi am na parce loolu oui acte la boo xam ne mën nañ ko qualifier de hmm. mais li tax muy soof nit ñi mooy ña nga xamante ni ñoo doon jàpp ay nit ci ay manifestation ci ay dàqante ak alkaati te loolu garaawul en fait ñooñu boo leen ne terroriste nga ba pare bëgg leen a méngale ak ñi taal bus day soof moo tax escalade baaxul te lii escalade bi ñu jëmoon hmm. désescalade bi il faut se réjouir mais tout en sachant que tooñ nañu nit ñi teg nañu leen lu ñu leen warul a teg te moo tax nit ñi dañoo war a nekk ci principe ñi doon layal li yëpp tey am nañu kersa ñi ko layal ñëpp ñëpp ñëpp moo tax ñi topp ci dirigeant yi. Mm. léeg-léeg nañu bàyyi di bëgg lu neex seen njiit parce que am na masse critique boo xam ne su amoon. autour de responsables politiques yi. Mm. masse critique boobu su amoon à l'intérieur de Pastef su amoon à l'intérieur d'autres partis njiit yi du ñu def lu leen neex. Mm. moo xam njiitu ñi nekk ci état bi la tout comme ñi nekk ci opposition bi. Mm. parce que masse critique boobu imaginez par exemple bu amoon ci. APR wala ci Macky Sall wala ñeneen xëy na am na masse boo xam ne dana ko ne mais sawaay ñun mënatoo ñoo jiite ndax élection yi léegi li ñu débat ko mais xoolal ñooñu génn nañ ci élection débat wuñu sax seen avenir u parti lu dul ka nga xam ne moo leen yóbbu ci élection yi moo leen ko ñàkkaloo moo décrété ni maa njiit maa def lii maay def lii donc masse critique yooyu nit ñi dañuy yor am fulla quelles que soient les di am loo xamante nañ koy wax te bañ lu njiit wax rek ñu layal ko parce que kersa la leen di yóbboo après. Mm. te alhamdulilah bi nga xam ne nag yoon. wax dëgg fa yàlla moom la ñu yaakaar te mooy pilier bi nga xam ne nii njort nañu ne. Mm. xëy na dootul yàng ci réew mi c' est heureux que ça se termine comme ça. oui euh, même question que dire de l' de la justice ci euh, dossier yi nii ñu nemmeeku et puis euh, mouvement Y en a ni ñu ko defee woon ci régime président Macky Sall noonu la ñu ko defee ci régime président Bassirou Diomaye Faye maanaam nee nañu teel a artu. mais sans féliciter euh, soxna Naata ay rëq-rëq mën na am mm-hmm. nga dem ba sa xel commencé euh, ñaaw mm-hmm. wala nga am xel ñaati justice bi mais au final je pense que lépp dafay euh, teguwaat ci yoon bi te je pense que lu ni mel la ñu gis ci euh, euh, libération yi mais li li mooy yoon je pense que lii la ñu soxla. Mm. wax nañ ko fi démb ak bërki démb. ce pays ne peut pas aller de l'avant ñu nekkee ci kuréel yi nga xame ni amul benn sens nga xamee ni day mobiliser médias yi centre d'intérêt yi changé au lieu ñu nekk di liggéey ci li nga xamee ni moom mooy jëmal réew mi kanam dañuy nekk di lijjanti ay problème personnel ay ay conflits politiques xamee ni euh, jaru ko euh, ça n'en vaut pas la peine mais lii ñu def nii lii moom mooy yoon et euh, ñu leen ci félicité mais eh, dire dire aussi c'est pas fini parce que ba léegi am na ñoo xam ne ni ñu ngi ci euh, kaso bi ay délit d'opinion moom moo leen fa bàyyi je pense que ci kanam on suivra un document boo xam ne commissaire Keita je pense interview doomam moom moo ko def euh, li mu wax comme ni ñu koy waxee yooyu jarul yóbbu kaso am na wax yoo xam ni moom démentir ko rek wala sax tànkam lu ko euh, doy na ci pour en revenir à Y'en a il y a un journal qui a dit euh, Y en a marre qui sort de son hibernation je pense que c'est normal peut-être qu'il y avait cet état de grâce boo xam dañu ko respecter muy luy yoon mais on a vu un en a sans son kilifa euh, qui n'est plus là <laughs> maanaam daf mi ngi ci beneen côté bi. Mm, à li ñu wax démb ci seen conférence de presse bi euh, lu am maanaa la parce que. luy jëmale démocratie kanam luy jëmale réew mi kanam lañu fo wax mais quelque part aussi on peut se poser des questions finalité mouvement mou, mouvement citoyen yi parce que kilifa mi ngi fa woon mhm. tey jii mi ngi yore benn poste de responsabilité évidemment tout être humain aspire à aller de l'avant mais quelque part tu vas te dire mais mouvement bi est-ce que du dañ ko jàppe benn <laughs> tremplin boo xamee ni si c'est si c'est pour fa nekkoon soo demee bam am poste de responsabilité da nga fay jógee euh, doo doo militeeti avant kilifa y avait euh, nu mu tuddati euh, Fou Malade Malal Talla kon moom sax mi ngi je pense mi ngi ba léegi nu mu tuddati kii bi tuddati sax conseil économique social environnemental moom mi mi ngi mi ngi mi ngi mi ngi foofu ba léegi même si euh, ñi ngi wax ni que daf fi jóge mais on le voit mm-hmm. retourner ci euh, mouvement boobu di euh, Y'en a loolu nag dafay xaw a andi jeexi jaaxa parce que dañuy dem ba jàppale ni que yéen ay mouvement de ay moyens de pression Euh, ngeen di doon pour euh, am lii am lële et je pense que loolu mën na xaw a hmm. euh, naxasal seen liggéey même encore une fois tamit ñu wax ko li ñu hmm. wax ci seen conférence de presse bi ak peut-être ak li ñu doon def hmm. dans le passé loo xamee ni la day day jëmale réew kanam parce que mbirum démocratie xeex arbitraire lañ fay wax mais lu conflit d'intérêt aussi on peut pas l'occulter bon c'est heureux que ça se termine ainsi te mënutoon a demee neneen lu dul nii. parce que lu dul dëgg moom du yàgg te yoon moom moo war a dox. danoo jàppoon ni Sénégal comme changement am na fii parce que nëgë ni daaw yaa un an ñi ngi woon ci jafe-jafe bu ñu jëlee kaaw Alioune Sané mi. Mhm. bu jiite Y'en a marre li ko daloon lii moo la parce que Ousmane Sonko lan gars yi woon këram mu doon dem di ko ñaawlu ji ñu jàppoon ko bi ñu ko jàppee. négat ba ci ak ñu libéré ko ñu libéré ko mu toog këram di manifester ba jàg xëy suba rek ñu ne le procureur kat nee nañ contesté na décision bi nga xamante ni chambre d'accusation jëloon ko ñu jëlaat ko directement kaso mm. directement kaso muy loo xamante ni mooy li ñu wax moom xëy na bu toogaatee gis ni <laughs> ça lui fait parce que jàppoon na ni comme on dit Sénégal yi waroon na fay jeexeetu pratique yooyu te malheureusement da gis tey ñu jàppal tànk nguur gi fi nekk ñoom ñi ngi saaga tey yanaamar extra Sénégal alors que principe moom ni ko Ablaye waxee day loo xamante ni lu am solo la da nga ciy des mooy dëgg parce que dëgg rek moom mooy lii mujj fii ci Sénégal maintenant ñi ci am kersa bokk na ci alkaat yi nga xamante ni quand même xëy na il xëy na faire plaisir au prince parce que euh, <laughs> démb j'ai lu sur Seneweb euh, Bougane sax il l'a dit Bougane nee na moom le procureur ne s'est pas autosaisi ci jàppam dañu ñu ngi ko doon toppee mbiram diffamation mooy sosal diffamation mooy kin sosal kay moo war a porter plainte xanaa pour pour ñu jàpp la. Mhm. mais amul kenn koo xam ne def na plainte alkaati ñu ne seen benn branche bu nekk fa la ci division cybersécurité. moom waaw veille mu ah. dañu ci internet bi yëpp moom. waaw alors que cybersécurité. Mhm. dootuñu nelawati cybersécurité cybersécurité ni mu amee solo ak monde bi. vraiment am na liggéey bu ñu def lu di traque ay opposants ak fi àdduna toll ak ni nit ñi di xeexee ci internet bu dee liggéey euh, mooy maître des fi doon wax fii korog rek ak biñ fi génnee li fi président waxoon maanaam bi mu sukkandikoo ci benn communiqué bu syndicat magistrat yu France defoon naa ne ñoom du autorité judiciaire warut a nekk au service li nga xamante mooy répression jëm ci mouvement sociale parce que loolu du liggéey politiciens yi na leen bàyyi ñu xeex seen ab xeex ñoom. alkaati muy alkaati wala magistrat yoonu mu nekkul ci xeex wayu politique. vraiment c'est pas à na leen ko bàyyi surtout dañu nekk ci jamonoy campagne boo xamante ni nit ñi am na droit wax seen xalaat et cetera su ko defee Sénégal mën a jaar yoon ce qui est arrivé à Madiambal aussi du yoon parce que nit ki ñu ngi woy passeport diplomatique nit ki bu ko amee surtout ci ancien régime bi yoon la ministère des affaires étrangères ne mi ngi koy jëlaat pour ñu organiser. ni nga xamante ni moom la ñuy doxalee passeport diplomatique fin Sénégal mais lui il dit que musul nekk détenteur d'un passeport diplomatique bu Sénégal passeport ordinaire muy tukki ma jàmbal xamul fu ñu ko dénkee àll Sénégal wala am na benn liste boo xamante ne génnoon ko pour mu a génn baaxul ci réew mi et je pense que nit ñi war nañoo delluwaat ci sérénité bi parce que comme ni ñu koy waxee bu fekkente ni da ngay gouverner waroo di gouverner ci ay tension ki fitna yoo xamante hmm. amul benn njëriñ boo xamante ni war na ko mën a amal fii ci Sénégal. monsieur Chérif sax mën nañu ko teg gàllankoor parce que c'est un homme d'affaires qui gère une entreprise te ñëpp xam ni sooy tukki bitim réew peut-être que. luy jëmale kanam sa entreprise la ak ñi ngay ñi ciy liggéey mën ci jëriñu. évidemment et ce qui est triste quand loolu du loo xamante ni mënees na ko rafetlu ci réew moo xamante ne démocratie et cetera maintenant il faut que débat bi ñu ngi ci campagne ku am looy wax. Mhm. teg ko ci yoon na nit ñi ñëw ci débat bi média yaa ngi ku nekk am sa programme. Mhm. foofu la ni xaar les acteurs politiques de tout bord quand ñu jéem a yéegal niveau bi. Mhm. ci wàllu ay proposition a doon a sauver man naata benn lecture rek laa ci am mooy euh, délit d'opinion la ñu wax yóbbu nañ leen fa mbaxane doonee benn kilifa yi ñu dégg yoon euh, assumé wu nañu nee nañ lii du toppeewuñ leen dara peut lii day indi rek euh, débat bi nga xam ne doon nañ ko fi wax justice bi moomul boppam tey ji wane na ni am nañ justice bu indépendante peut-être benn tegtal rek laay am mooy euh, nit ñi aussi ñu bañ di bu leen arrangé rek ñu ne justice bi euh, justice am na Sénégal bu la arrangé wul aussi nga ne tëddeewul njaaxaanaay peut-être euh, loolu aussi parfois day day xaw a doy waar mais lu mel ni dina xaw a dalal xel yi ñu leen ni félicité bu baax parce que lii tamit dina tax askan wi gën a am te gën a wóoluwaat suñu suñu justice. Hmm, merci beaucoup Maimouna ñu jàll ci beneen ponk muy un jour au Sénégal un jour dans le monde.